bëgg naa ñu waxtaanee si actualité réew mi mm-hmm. tolluwaayu jamono gis nañ ku nekk euh, xët-xët yi bëri na mm-hmm. opposition bi fii gouvernement bi fii ku si nekk euh, di indi daanaka ñii dañuy xëcc fii ñii di xëcc fii tey Mbàkke euh, nga nekk koo xam ni tey defe mm-hmm. naa ni modérateur nga yow war ngaa wax ni ñi dégg tey sooy wax lan ngay wax si ñoom si loolu li xew si réew mi tey réew mi réew mi gor yépp toog nañ góor yëpp toog góor yëpp a luum ndax wax mënu ci dara ndax bu doon wax mën na ci dara li wax lépp mu faju waaye noppi it warut ndax ku noppi rek àdduna tukki réew mi nii mu jaxasoo ci at yii ndaw ñi li ci dee kenn xamul nu mu ndaw ñu bëree bëri dee nañ ci réew mi te li waral ñu dee réew muñ tegul ci yoon. woo xam ne nii dañoo war a fexe ba ku ci ne la nga ca war a am ak na ca war a taxawee ñu bañ la koo xaj politiciens yuy nax ay ndaw. Mm-hmm. ba ndaw yi sonn ci ay nax. daw génn ci mbedd mi xamuñu fu ñuy taxaw ba ku ci nekk dal ci barab faatu ñii tëj nañ leen ba ñenn ñu ngi leen di génne waaye ñenn tëj nañ leen ay weeri weer liggéeyuñu ñenn ñoo yoroon seeni yaay ci seeni kër ñenn ñoo yoroon seeni baay yor seeni kër di joxe dépasse tëj nañ leen 6 mois wala 7 mois yoo xam ne seeni yaay lañ leen daan jox joxutuñ leen ko ñu nekk ci nattu nekk ci mettit nekk ci jafe-jafe. Mm-hmm. nee naa nit ñi xamuñu sax li nit ñi dund. ndax damaa yaakaar ni est-ce que man ñi yor état bi walla ministre yi walla président bi sax est-ce que xam dëgg-dëgg askanam li ñuy dund. ndax askan wi li ñuy dund metti gi metti sax dafa ëpp askan woo xam ne lim daan am akus néew yokk nañ mbir yépp ba mbir yépp. toll na foo xam ne kenn mënut a jëndati dara ci njëg gu yomb luyaas bi ñiy dund luyaas mënatuñoo fay luyaas ndax yokk nañ luyaas yi luyaas yi seer na courant bañ war a fay yokk nañ ko ba courant bi kenn mënatu koo fay yokk nañ ceeb bi yokk lépp ba dara dara dara yombatu léegi ndaw ñi ñenn ñi ànd nañoo politiciens yi di marche ñenn ñi ñu boom leen ñenn ñi làggi nañ ci ñi ci des daw nañ génn réew mi daw daw waxit ñenn ñi des di désert bi ñenn ñi des nañ ci géej gi ñenn ñi daw nañ génn àgg nañ te xamuñu kenn lañ ñibbiseet ndax fañ dem bu dee Amérique ay kayit yombu fa kenn lañ ñibbisi waat seenum réew ah te réew mi lépp fi am da ngay gis nit koo xam ne danga naan ay milliards la yor rënk ko ci barab dend ak kër yoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu ndékkee du ñu añ di rënk ay milliards di dawali oto di gaare bay gaare sax ci parking ñépp ay oto baasi féppi oto te yow li nga yor mënu ko bokk sa waa koñ ba noppi bu dara jotee nga jóg ne man maa ko yayoo nañ ma jiital nañ ma fal jox leen ma ko buñ la ko joxee nga dolli ko sa alal fàtte askan la ko joxoon politiciens yi nii lañ nekk ci dëkk bi ndaw ñi ñuy tas seen yaakaar ba seen yaakaar tas looloo waral réew mi toll fii mu toll. waaye dama leen di conseil ñoom ndaw ñi. ndax man du sëriñ boo xam ne damay bëgg ñuy génn ci mbedd di toj di yàqal koo xam ne lam dajale woon ba ubbi ci am magasin di ca jaayi portable am wala mu ubbi ca benn petit euh, bitik bu ndaw boo xam ne. dafay jaay bis di fi business business bu ndaw nga génn yow ndaw li yàqal ndaw loolu nga xam ne kenn financé wu ko du état ko financé du ab ko financé du politicien ko financé moom moo wut ay dërëm ñaar dërëm ba am ab kantinam wala mu am ab bitigam yow ngay marché ba far yàqalaale ko ko mm-hmm. ñaata ndaw ñoo somme fi mu toll ni may wax nii ñoo xam ne yoroon nañ ay bitig yoroon ay liggéeyukaay tey ji liggéeyatuñ mm-hmm. ñu dolliwaat ñàkk gi muy gën a dolli ku waat ci réew mi kon damay bëgg ndaw ñooñu ñuy demee xel tey bañ a demee xol réew mi fi mu toll nii xol atteetu ko xel a koy atte réew mi du xel du xol moo koy defar fi toll du xol ndaw ñi dañuy demee deret ju tàng waaye dama bëgg ñu dal ci seen deret ju tàng jooju te lijjantee mbir mi xel ndax université yi tëj na mm-hmm. ñu ci bëree bëri jàngatum mm-hmm. léegi at at weer yooyu nga toog jàngoo ko sa temps mi ngi dem. yaa ngi yàq sa avenir. te lu ko waral mooy ndaw ñu demewul xel tey damay xol. kon dama bëgg ñu xam ni état kenn du ko xeexe ak i xeer état kenn du ko xeexe ak i jaasi état kenn du ko xeex ak i lakaramosen di ko sànnante waaye état ñoo ngi koy xeexe xel ñoom ñoo faloon kii fi nekk muy président Macky Sall. ak état bii fi nekk nanu dal yàgg yàgg wax naa leen ko. bu fekk ko élection dañ ko dàq ba juróom-ñetti at wala fukki at wala ñaar fukki at ci waxeen la rek nag waxeen la de. Mm-hmm. bis dana jot ñu élection. Mm-hmm. te giñ naa ko ci Serigne Touba képp ko bëgg jot te mënoo koo jot yoroo saw carte te ko te fonk ko bu élection jotee nga dem woteel ka nga bëgg a woteel boo ko wotelee balaa dix-huit heure bii may wax ak yow balaa bis neuf balaa vingt ñëpp xool kañ bëgg a woteel ñu woteel ko ndax naqar wun am ci ñii neexu leen balaa vingt seen naqar jeex ndax boobaa la ngeen bëgg dana faju te doo leen ci xeex doo leen ci xuloo waaye damaa bëgg nit ñi gën a dal ndaw ñi gën a dal sëriñ sii ñuy tooñ guddi ak bëccëg di wax ci ñoom lu ñaaw di wax ci ñoom loo xam ne nii du ay teggin ñu gën a yaruwaat